jooju ci la bokk mu yóbbante ñu ay kàddu ci président fédération yi di leen sant di leen gërëm ci taxawu bi ngeen ko taxawu parce que ba mbir mi amee ñëpp constaté nañu ne monde sportif bi ñëw njëkk a nangu nangu bi ñu nangu nag ñàkkul ay conséquence waaye tey amul ku fi nekk kuy xalaat boppam réew mi la xalaat ak population sénégalaise moo tax ñu teg lépp ci suuf ba pare jox suñu bopp autorités sanitaire yi ak autorité administrative yi pour fu kàddu war a dem ak ku ñu war a waxal ñu wax la li nga xam ne loolu kër docteur wax mooy ñu bàyyi joxe loxo yi bàyyi regroupement yi ngénte yeeg ceet yi ñëpp di daje ak takk yi loolu yëpp nañ ko jëlal ba génn ci xeex bi nga xamante ne moom la ñu nekk loolu nag ñi nekk ci wàllu tàggat yaram ak njaboot gi ñu am ku ci ne bu waxalee sa njaboot defe naa ne Sénégal dana daj nit ñi taxawe ni ñu war a taxawe te bañ koo fooye bañ a andi yeneen i ngëm-ngëm jàpp ne loolu amul dama ne Sénégal ñëpp ay way gëm lañu way gëm nag nga nekk chrétien walla nga nekk jullit a ci yem kenn fàttalekuwul fii fu ñu ne màkkat amul ren kon kuy musulman war ngaa xam ne lii du ay caaxaan kenn fàttalikuwul fu ñu ne Rome amul ren kon war ngeen a xam ne yëfi du ay caaxaan scientifique bi sax mun nay it wax man ma bañ koo gëm parce que xaw ma li muy wax waaye ku utiliser sa xel di nga xam ne li ñuy wax jàngoro ju am la te lu jara moytu la suñ demee bañ ne Maroc amatul jumaa juma tijjeetuñu jàkka yi war na ñoo xam ne loolu mënul am bu jàmm rek amee waaw bu jafe-jafe amee nag ku ne dafa war bañ a jànnaxe waaye mu jël ko au sérieux pour que effectivement ñu mun a taxaw ni ñu war a taxawee ci ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc.